salaamaaleykum mbokk internet Sénégal set ak Dakar net euh, comme ni ñu koy defee rek saa su nekk euh, comme dem diggoon xibaar bu tiis bu tegu ci kaw Sénégal euh, rawat rawatina axlu làmb ku ci mel ni suñu papa Double Less ñëpp xam ko ci ci papa yi Balla Gaye ak Sa Thiès tey moo gën génn na ñu ngi ñii almeer Yoff di ko waaj a jébal suñu borom. lu def rek lu dul dugg ci biir ànd ak Papa Mbaye jël euh, réaction gars yi jël ay témoignages gars yi ñu wax ñoom lan euh, mooy nan la ñu dundee euh, xibaar boobu ñu jégoon te te mu tiis lool. acca mbaa ñu dem incha allah. mbër mi leen di di la ziar. waaw bëgg naa bëgg naa bu baax. tey ban témoignage nga mën a defar maam góor ji fi génn di dubalees def lu nekk ci la. waaw di ko ñaanal rek di ko ñaanal ko àjjana. waa dubalees sama papa la am kóolal ak sama papa. waaw comme ni mu julee Balla noonu la mu julee rek. donc bu ñu jigee foofu ñu ñaanal ko suñu borom xale ko àjjana loolu mooy àdduna waaye nit moom bu ñu ànd ak moom ci bànneex bu naqar ñëwee tamit dañ ci ànd ak moom ñëpp ñoo bokk ndey ak mbaay Pape Maguette ku fi jógee rek ak ak mu soree ci doom foofu ñëw masawu Balla jaare ko jaare Sa Thiès bokkoo ñoom tiis bi àdduna noonu la daal amul solo tey lan ngay ñax Balla Gaye ak Sa Thiès parce que ku kilifa sa waajur bu góor génn àdduna ñëpp yàlla moom boo dundee ba yàlla def sa papa jógee génn àdduna nga ànd ak moom dem góoyee ko ba suur ko denc ko sant yàlla baax loolu moo ci amoon solo li gi baala moo am na mag mais moom tamit mooy mooy famille bi mu taxaw taxawaayu papa rek papa fi mu taxawoon rek incha allah. sa mborom mbër yëpp doon ak ngeen nar a wéet est que tey euh, jotul ngeen booloo ngeen gën nekk benn muy nekk benn boo xam ne dafay dëggu mu bàyyi ñu bàyyi ancien lutteur rek ah mhm. lycée lycée euh, xaw ma les jeunes lutteurs rek yu kenn xamul waaw waaw nekk benn mooy yoon parce que nekk benn nag lii wane na ko ay mhm. amétis ñu ñëpp ñëw nañ loolu mooy àdduna ñëpp dañ bokk nday bokk baay kenn mënu fi nekk éternellement rek te mag yi ñu ngi jëm mag daal mais lu leen ñaan rek suñu boom xale leen àjjana ñu fi jóge ñu fi des suñu boom dëgëral leen loolu rek moo am solo làmb nag moom il faut ñu bokk nday bokk baay bu ngi deful loolu dara du sotti mais lii wane na ko gis nga ñëpp mbër yëpp champion yëpp ñu ngi fi bokk ak Balla tiis bi ñu ngi ko koy jaare jaare Sakees jaare famille bi yëpp jaare waa Géejawaay lépp loolu àdduna amul solo daal ku ak papam daal di génn àdduna nga daal di ñëw. waaw avant tout ñu ngi nuyu Sénégal ñëpp di nuyu ñëpp di jaale Balla Gaye mhm. di jaale àdduna bi yëpp laay wax sax parce que moom bi walees moom mën naa ne suñu papa la ñun ñëpp. Mhm. Euh, te naqar moom ñun ñëpp a koy bokk. Mhm. waaw lii moom di ko ñaanal yàlla fi mu jëm gënoon ko fuuf fi mu jëm. di wax euh, ñoom Balla yàlla yokk leen xolu mu Sa Thiès ak mhm. famille bi yëpp mhm. xam nga di leen wax na ñu ngi bokk ak ñoom naqar bu baax a baax a baax a mhm. baax metti na trop ñu ngi koy bokk ak ñoom euh, tey ngeen def acte bu nice parce que ñu bëri dañ naan Balla Gaye Modou Lo ay noonu loolu làmb la loolu làmb la lii lii lii du du làmb du mbiru àdduna lii du ñàkk génne àdduna ñu ko njëkk Balla Gaye 2 actuellement. Balla ñëpp xam ne Balla toll nii relève moo ko jël uufaan njaboot ban conseil nga koy jox ci loolu. non Balla moo ñuy jox conseil moom mooy uuf njaboot gi uuf ñu liñ mën mooy bokk ak moom naqar yi defal ko yàlla na ko yàlla mooy xolu muñ suñu mag la suñu kilifa la moo ñuy jox conseil rakk tuuti na ci jox mag conseil kon defe naa liñ mën mooy defal ko yàlla na yàlla mooy xolu ñu bokk ak moom naqar yi yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana yàlla bu ko dara topp ci bu ko cat euh, fekk ci bàmmeel quoi. waaw am tiis bu métti rek parce que li Balla di yëg rek guddi yi loolu la ñuy yëg parce que champion du monde la def lu ne ci làmb te lii ñuy def ci làmb moom bokk ñu ñu ñu ko bayal ba mu ba ñu ñëw fekkee ci wërsëg bi du dëgg. kon tamit aussi vraiment ñu koy jàll Sénégal gi yëpp waaw parce que àdduna nii la àdduna dafa gàtt ñun alors yàlla suñu borom lañ jaamu yàlla suñu borom lañ bala maa ngi koy wax mu muñ neexul nag mais bu nee muñee rek dafa fekk mu métti ñàkk na lu ñàkk na lu foor ñàkk nañ sax lu foor rawatina bala ko mu muñ ban témoignage ngay def ci góor googu nga xam ne nii mooy suñu papa Double Less waaw nitu làmb tey làmb ñàkk waaw di champion du monde tey suñu gisee maa ngi moom bëriwul mais lu mu néew ñu gisee que daf may conseillé kon kuy conseillé doomam daf may xamal ni mag yàgg baal yeneen yem ci man mm-hmm. te conseil bu rafet la mu mos jox vraiment maa ngi koy ñaanal fi mu nekk yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla jégal ay bakkaaram waaw maa ngi koy maa ngi koy jaal nag senegal gi yëpp li Balla yëg ci xolam rek laa yëg suma xol bala ñàkkul ñu ñoo ñàkk waaw ñàkkul ñu ñoo ñàkk ñu ngi koy jaal Sénégal loo koy ñaax mu yokk góor góorgóorlu mu muñ gaynde la nag parce yàgg na gere waaw dam koy wax mu gën a gérer rek te xam ni yàlla suñu borom moo ñu moom. waa alal yàlla suñu borom moo est-ce que xalaatoo euh, ñi fi jëkk ñëpp est-ce que xalaatoo ñu defal leen ay monument euh, sampal leen fi nga xamante ne que mooy arène nationale. waa jaadu na rawatina ñu nekk international ñu nekk international rawatina loolu voilà loolu moom lu jaadu la tamit aussi nguur gi di leen bàyyi xel. parce que dañuy toll moment boo xam dañuy soxla loolu des fois donc seen i doom nag ay jàmbaar la ñuy mais nañ gën a gersu gars yi nga xam ne def nañ. bi nga dig euh, bi nga déggee euh, xibaar bu tiis tegu ci kaw Sénégal rawatina axtu làmb suñu bàyyi Double Less génn àdduna naka nga ko dundee. waaw naqar la pour làmb ji rek di ko jàll Sénégal yëpp di leen ko jàll yéen di wax ne naqar bi ñëpp ko bokk mais sant yàlla quoi nit moom xam nga bu dundee bu am quatre nañ koy ñaanal yàlla. te xam ne loolu la yàlla dogal di ko jaal Balla Gaye ak Sa te moo tax ma ñëw xam nga ànd ak euh, Assane Ndiaye Daouda ak Modou ak mbay Guy gi ñëw teewal fi waa Bawol yëpp di wax ne làmb ji ñoo ko bokk espoir bi ñoo ko bokk noonu la quoi waaw. aussi tey lan ngay ban message ngay jox Balla Gaye ak Sa nga xam ne ak perte ku mel ne waajur dafa metti waaw di leen wax yal na leen yàlla mooy xolub muñ rek te xam ne àdduna noonu la waajur moom waajur rek la. ñoom di leen wax lépp lu ñu def ci lu baax rek ñu koy fosaale ak ñun ñi ak yéen ak ñëpp ah. te xam ne àdduna noonu la quoi. waaw moom laay wax tout à seetaan beneen image am dëmb mu ney muy def li gréco-romaine ni ci biir tubaab yi loolu image moom marqué la quoi wax dëgg yàlla. Takaw waaw ñoo jëre yow dem yoonam. comme ba balagee musu ëpp trente minutes. comme nit bu mel noonu mu toppatu loko papam. Mm-hmm. comme papam. génn woon na Sénégal bër hmm. comprendre nga nekk champion hmm. léegi foo Balla topp ci papam encore parce que Balla Gaye hmm. musu génn ci réew bi ci ci ci làmb butéel bi nga andi maa di nga ko andi <laughs> yëpp yëpp dinaa moti incha allah ah. waaw moom béy na waaram li mu waroon def yëpp def na ko waaw li mu waroon def def na ko te xool lii rek war na yéen nit ñu bari da ngay xool barki démb père Mbaye Guèye si la demee comprendre nga ana euh, père Balla Gaye dem na ana Mor Fadam dem na àdduna amul solo nan ko rafetal nan ko rafetal àdduna amul solo loo fi gis dafay jeex lii sport la dañuy liggéey rek su jeexee rek jeex na nan yeneen xol yi tey jii xoolal ma lii tey ñëpp a fi ah ay ñoom booy ñaa ñëpp mbër yëpp presque ñoo ngi fi ay ñoom guy gi tout ñoom la de guerre kenn Alioune Seye kenn desul mbër yëpp ñoo ngi fi kon nag li ci war mooy nan yeneen te jàmm te xam naa bis bi dafay ñëw de bis bi dafay ñëw waaye gis naa fi lu ñaaw sàcc yi barki sëriñ Saliou Mbacke billaahi wallaahi taala ñii ragaluñu yàlla ragaluñu yàlla billaahi wallaahi taala ay sàcc laa wax ni ñu koy def xam nga lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw di taf ay portable eh, ci biir ay armeel ah xanaa xalaatuñu ñoom dañuy dee ëllëg ñu suul leen ñu indi leen fii lii dafa ñaaw man sa bopp damaa ruus man waaw lii baaxul a ah, lii baaxul a ah, lii baaxul sama papa yàlla na ko yàlla xaare àjjana moom bay na waar li mu waroon def ko ah? am ay doom de wax dëgg yàlla ah am nañ ngërëmam de muy Balla Gaye 2 Sa Thiès ñoom mala ñoom ñëpp paa bi gërëm na leen kon nag ku ne lii ngay ñaan yàlla nan ñaan yàlla sàkku ngërëmu waajur dafa am solo ci doom ngërëmu waajur nan leen sàkku ngërëmu waajur sama rakk ji yàlla ko yàlla may xolu muñ muy Balla gay 2 yàlla ko yàlla may xolu muñ ak ñoom Sa gërëm nañ leen yéen ñëpp presse wax leen ak sàcc yi nag lii baaxul li ñaaw na waaw waaw gannaaw bu ñu leen di suñu baay bi di euh, Double Less 2 waaw démb bi nga déggee xibaar bi tiis bi euh, tegu ci taw Sénégal ak lu làmb naka ko dundee. waaw dëgg la affaire yi moom métti na trop mais ku lu nasin saa yaxatin mootin bakkan bu ñam dundee ñam dee ñu ñaanal suñu papa Double Less yàlla xaree ko àjjana te yeexi ñu saraxam yàgg suñu loxo di ko jaale Balla Gaye ak Sa Thiès ak monde làmb yëpp di wax ne ju baax la woon ñu ngi defal ko jàmm. di ko jaale senegal yëpp daal di masawu Balla gay 2 ak Sakes ak ak lu làmb yëpp tamit waaw ñu ngi siyaar bu baax. waaw man nag miinteewu ma moom bu baax a baax quoi mais comme témoins yi gars yi wax yëpp waaw ndax papa ju baax mooy jur doom ju baax ku xool Balla gay 2 rek war a mën a xam ne kon Double Less moom macha allah ñu ngi koy ñaan suñu borom xaree ko àjjana si àjjana yi gën fi àjjana yi gën a kawe si àjjana yi Firdawsi si barke Seydina Muhammad ci barke Serigne Touba. jaajëf ñu ngi leen di siyaar bu baax baat onze billahi mina seytaan rajim dañ inna lillahi wa inna ilayhi raadihun rek wax dëgg yàlla suñu papa dubalees di ko ñaanal suñu borom mi nga xam ne mu am yërmandeeg jéggal yàlla na ko yërëm jéggal ko xaare ko àjjana kawe ci barke Seydina Mohamed wax dëgg yàlla suñu papa la woon suñu xarit la woon suñu lépp la woon képp koo xamante ne euh, njaboot bi boole ci woon euh, waa këram rek képp koo xam ne yaa ngi xam nga yeewoo géej waaye rek bool na la si njabootam su amee combat mu taxaw la conseiller la ñaanal la wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal suñu borom mi nga xam ne mu am yërmande ak jéggal jéggal ko xaaral ko àddina yi kawe ci barke Seydina Muhammad la daal ñaax ci wàllu sa waaw xam nga du ñu ñaax ci am xam nga am fulla respecté sa combat xam nga euh, fonk ñi ngay àndal loolu xam nga bokk na ci loo xamante ni doon na ko doon na ko dëkkal suñuy nopp wax yàlla ñu ngi koy ñaanal daal suñu borom mi nga xam ne moom yërmandeeg jéggal jéggal ko xaaral ko àjjana yi kawe ci barke Seydina Muhammad